Mauritanie gi do fa dugg mbuss ak lo man di yor mbuss mom roos Sénégal lay bo boo Gambie tar nañ fa yu bari ci walu mbuss té ñun liñu sétlu fi fii Sénégal mooy mbuus bi ëpp lu mi polluer moy liñ tambalé moy mbuss ndox ñaata mbuss ndox lañuy naan par bes mbuss bu naan sànni def nañ ben xayma ñu né fi ci Dakar.

bopp koñ boo romb am na koy jaay kii boo naanee doo ci sànni da ngay naan rek sànni waa UCG UCG ñëw ramasser dem yóbbu te dañ lay wax ni loolu du seey te ñu am yeneen méthode yoo xam ne mën nañ ko utiliser tey am na kaas yoo xam ne mën na cee naan carton la carton moom njëriñ bi mu am mooy boo ko defee ci suuf mu seey waaye boo ko xoojalee say xar bu ñu ko lekkee tamit mu amal leen njëriñ palaat yi mën na nekk carton kaas yi mën na nekk carton léegi am na xew-xew yoo xam ne sax boo fa demee butéel yi

la gestion des déchets plastiques c'est une quotidien quotidienne nañ ay partenaire yu mel ni Proplast UCG léegi wax na li nga xam état bi mi koy def pour jéem a dimbali nit ñi les maires nous les avons appelés jàppale tey jox ko 100 poubelles je sais que bu ko jotee dina ko séddale parce que léegi la mu wax moom 20 quartiers la am ma koy tooñ di am ah, man de yaakaar 26 unités la am xamu 27 mu expliqué mais day doon poubelle des poubelles ne day jëriñ askan wi li nga xam ne la aussi ci dëkk buñ ko ramassé ñu yóbbu ko ci kiosque yi ñu transformer ko en argent waaye bu ko collecteur bi jëlee yóbbu ko ci usine bi ñu mën koo defal donc ngeen xam ni ministère de l' environnement et développement durable ki nekk ci boobu di monsieur Abdou Karim Sall mi ngi taxaw pour jàppale partenaires yu mel nii jàppale leen ci li nga xam ne dañ koy def pour setal dëkk bi